Salut les amis de eSport TV et de Papa Show. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci de louer des likes, merci de louer des abonnés. Merci également Gaël hein, des bails et des commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois des partages et des informations. Inbox sénégalais, fait folle Monténégro, 14 régions du Sénégal. Rokhroukhadi, Gorgokhadi, Ninglen, Diadjofol. Nous sommes également aussi à l'hôpital et sécurité du février. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de Nous aussi erreur judiciaire. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire on avance ensemble dans la magie de Baba Show et des Sport TV. L'actualité en contenu actualité nous faisons voir donc au Sénégal 2022, 2024, 22 ans après, Warti Boukari Soumaré avec également le geste de Nicolas Jackson. Yep, nous faisons ko wasaare indi ci ay et jox mais là, d'abord également li nga xam ne gars yi jëm euh, ci di actualité bi euh, da dem également ci Baba Show ngeen abonné aussi le cas de Hassan Diao qui est à expliquer li nga aussi moom donc qui. Euh, di donc euh, monteti euh, Nicolas Jackson di fa fek aussi li nga xamné aussi moy yenn détail ñen jox mais laata bobu dañ leen invité aussi gay ngeen dem ci chaîne bi di donc euh, TikTok bu eSport TV donc gëjoon nañ ci def ay vidéo amone affaire ñu doon lijjanti fi mu mi ngi nonu donc eSport TV 1 la ci TikTok bi ngeen abonné agrandir la famille pour jot actualité également de manière très constante faire résumé débrief la des def L'année nouveauté bo xam di ngeen ko fa gis mais aussi dem ci suñu Instagram bi di eSport Inter pour daal di fay donc gay également abonné ne fa ngir mën a am fofu aussi ay live amna ay mbir ñuy daal di mais également ki nga xam nak moy donc Fabien Ruiz le joueur de la Roja espagnole mais aussi du Paris Saint-Germain moom nag entraîneur di Luis de la Fuente nee na waa dañ koy sous-estimer nee na waa li mu mën a apporter ak li mu a def gars sax gisaguñ ko Fabien Ruiz nga xam fin de saison bi il est exceptionnel et avec le Paris Saint-Germain et également avec l'Espagne Gianluigi Donnarumma ak équipe bi di Italie ñoo li nga xam ne nag mooy donc Albanie deux buts à un l'Italie avec son capitaine roma bi nga xam ne nag gars yi moom itam hein, c'est un un des meilleurs gardiens au monde Chiesa le joueur de la Juve moom la ñu tab def ko mu nekk man of the match si jongante boo xam ne nag gars yi ah jàppoon nañ ne day yomb waaye yombul woon noonu noonu noonu ci équipe bi di Italie parce que équipe bu ndaw amatul kii na ngeen gis ni di Gareth Southgate mooy le sélectionneur de l'Angleterre l'un des plus décriés ah moom nag bokk na si ñoo xam ne gars yi moom voilà ma ko dañ naan qui ben gagne gars yi ñoo koy tooñ sax naan Sénégalais qui kii mooy benn Aliou Cissé bi il a énormément de talent mais euh, de joueurs talentueux plutôt mais moom utilisation bi la gars di casse et pourtant il est entraîneur le mieux payé Gaïa, c'est l'entraîneur le mieux payé donc au monde chez les bien évidemment 5,800 000 euros top Top Martinez Deschamps Coman Spalletti entre autres si l'entraîneur yi ci Europe ah, moom moo ci a de Lirtewa, donc Manchester United ñi a insister pour recruter le défenseur Longeline, donc de la Hollande et du Bayern de Munich Qui nga nag donc Tanguy Nombele, Mondal, daal eh, proposé Paris Saint-Germain pour mu daal euh, eh, Barcelone plutôt également propose nañ Paris Saint-Germain mais surtout Barcelone Lesquels ko gën proposé pour mu eh, dem ki nga xam donc Soumaré le joueur sénégalais d'origine ah. Momnak Ganaviko, nag euh, Leicester Alewon, du côté de Séville de jóge moom nag Galatasaray jamono ji lay Galatasaray qui veut le milieu donc franco-sénégalais. 1900 euh, hein, donc 92 euh, Sénégal Coupe d'Afrique lañ ñu xamee woon ah bi dem fa ba li nga xamné donc Sénégal 92 ñëpp dañ ci ràññee dañ ci ràññee gëjoon nañ dem final avant bobu 2002 ñëw ñu dem final Coupe d'Afrique dem également li nga xamné donc quart de finale euh, li di euh, donc Coupe du Monde bi nga xamné nak victoire bi mo ñu may ñu daal fa egg le but de Henri Camara ngeen gis ko ndeysaan moom ak ndem si Yalla Bouba Diop day nek moment yo xam dañ koy fàttaliku donc c'était un jour comme ça hein, c'était un 15 juin 2002 tey 15 juin 2022 le Sénégal qui réalise encore l'exploit pendant ce temps de Mourinho membre de Special One Gisgenko, mon ko def na benn 11 am par rapport ak yenn joueurs yi mu entraîné ah ma ngoog Rafinha moom it moom daal nee na dee du wan baat ah. donc mi ngi nekk di tontu Ronaldinho et comme je dis nekk na loo xam ne mën na ñàkk on a beau dire Ronaldinho amul hygiène de vie et tout mais cadre football bi li mu wax mooy que na joueur bi mu joxe bu baax ci terrain bi et Ronaldinho sur le terrain c' était le magicien c' était le maître gars yi li moo nekkoon information ñu bëggoon jox deen invité ngeen dem ci nga xam ne mooy donc Baba Show seetaan beneen partie bi ñu def foofu noonu gars yi wax leen un peu si point mercato bi ci ñoom Nicolas Jackson et tout vous allez avoir beaucoup nekkul surprise bu baax ci la bu la suñu la gaa yi jàngeen